li ñeel wàllu mbënd mi autorités yi nag toll ci xayma seeni bilan nawet bi nu weesu nag amul benn yoon boo xamante ne bi yëkkati nañu li ñu duppee plan Orsec autorités yi nag di dellu siwaat ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ngir mën a am résultat bu ni mel. tàmbali bi dès mois de juin euh, de mars dafa woote comité national de gestion des inondations bii nga xam ne tey ci la acteurs yëpp di dajaloo. ñu mën a définir très tôt stratégie bi nga xam ne ni moom la ñu war a mën a mettre en place pour mën a am hivernage boo xam ne dañ ko def dans la tranquillité def ko aussi sans grande difficulté. ci ndaje mi nga xam ne mi ngi ñeeloon xayma anam ba ñu yoree lii di inondation yi ñu daal di ci fësal itam nañu nara a jëm ci nawetu 2024. waaw waa perspective waa perspective bi pour 2024 mooy continuer liggéey bi nga xam moom la def beneen bi teel a jóg. ndax li ñu may résultat bi ren bokk na ci teel a jóg teel a xam problème yi teel a anticiper ci solution yi te gis nañ ni am na résultat bu ñu jural ndax mois de janvier 2023 fekk nañu jóg. ngir fexe nag ba askan wi yëpp soobu ci xeex ba nuy xeex mbënd jëwriñ bi di fësal ab programme boo xam ne dafa ñeel tàggat askan wi si li ñeel climatologie. éducation ak sensibilisation communauté yi dafa am solo ndax dañoo toll ci contexte changement climatique ñu ngi jóge ci COP ñëpp xam ne ne tey jaww ji day wëlbatiku. tey li daawul am dañu gis ne léegi day am muy ay phénomènes extrêmes yuy manifesté woon nag ci manière yu bëri mais taw yu jéggi dayo gis nañ ne aussi daf ci manifesté wu loolu aussi ci biir liggéey bi dañu ciy boole fexe ba tàggat population yi fexe ba sensibiliser leen ginnaaw succès bi nga xam ne am nañ ko ci yorinu mbënd mi ci at mi nu weesu autorités yi nag taxaw temm ngir boobu boobule dynamique ñu daal di koy wéyal su ko defee nawetu atum 2024 ñu bañ cee tudd benn inondation